asalaamaaleykum gars yi na ngeen def maa ngi leen nuyu di leen ziar leen fàttali yéen a ngi seen canal Galsen Tube la canal des youtubeurs ci seen programme OBS studio vidéo ki leen koy defal di Pape Mor Lo ñu leen koy defal en wolof. vidéo tey bi nag mooy vidéo numéro 20 vidéo numéro 20 bi ci lan la ñuy ñëw dañuy ñëw ci live youtube bu simple basique boo xamante ni presque mun naa ne lépp ci biir euh, OBS mi nga koy defee voilà ñaari élément rek la ñuy jël extérieur muy logo bi ak. Euh, non beneen template boobu sax jarul koy jël biir biir extérieur voilà parce que am na dinañ dinañ leen ko won mi après dañ koy dindi pour wan la ni maanaam a part sa logo lépp mun nga ko def ci biir OBS bi voilà. léegi nag comme live moom comme ni nga ko xamee soit vidéo buy daw nga def ko live la soit émission rajo wala émission télé wala nga am IP euh, boo xam ne bu set la amul logo amul dara nga jël ko def ko direct wala nga reprendre direct YouTube wala direct Facebook wala TikTok et cetera et cetera fu direct bi mën a daw rek voilà mën nga ko reprendre pour def ko live. ci kaw nag mu nekk direct boo xam ne nga xëy dawal te doo ci benn problème nga bàyyi ko xel du luy luy daw ci internet wala luy daw ci site rek nga reprendre ko def ko live ci sa chaîne YouTube voilà parce que boo defee live bi lu am droit d'auteur mun nga ci loolu xel léegi ñun euh, exemple bi vidéo la ñuy utiliser comme moo gën a simple def euh, euh, direct benn vidéo léegi ñu cliquer fii plus bi suñ cliquer plus lan la ñu indi ñu indi suñu source média muy suñu vidéo njëkk koo indi ñu def fii vidéo voilà vidéo parce que benn vidéo lay nekkoon soxlu ñu koy defal numéro ñu def ok dem indi suñu source euh, source ba mi ngi ni vidéo bi lañu jël comme exemple bu ñu jël vidéo bi comme euh, vidéo bi mën na gudd mu arrêté mun nga def liir en boucle su jeexee tam mu commencé wat léegi ñu def ok suñu vidéo ñëw na léegi deuxième lien lan la ñuy indi nañ indi léegi suñu logo teg ko voilà ñu cliquer fii dem indi suñu logo image la ñëw def fii logo tudde ko logo voilà lu nekk nga sol ko tur comme sax mooy tax après ci euh, ci source lu nekk nga xàmmee ko ñu dem cliquer fii parcourir voilà léegi bu ñu indee fii ñu dem wëri suñu logo fan la nekk ñu dem euh, Galsen Tube fa la logo bi nekk Galsen Tube waaw mun nañ jël lii comme comme logo voilà bind bi mën nañ jël bind bi voilà bind Galsen Tube bi voilà ñu def ok voilà léegi ñu wàññi ko dugg na ñu wàññi ko voilà voilà li la ñuy teg mooy remplacer suñu logo léegi lan la ñuy def day ñëw indi rek léegi live bi ak heure bi ñu cliquer fii plus def source texte bu ñu defee texte ñu def fii ñu tudde ko lan ñu def ci live voilà pour ñu xam texte bi am live bi la live léegi ñu cliquer fi lii à partir d'un fichier ñu cliquer fii suñ cliquer fii ñu ñëw fii parcourir buñ cliquer parcourir ñu ñëw suñu disque dur dem programme pour wëri li nga mooy snaz bi Jeems app fii la woon yaa ngi koy fàttaliku snaz text file time ñëw na dugg na léegi lu ñuy def ñu defal ko fond fond bu bu ñuul voilà euh, waa texte bi format bi jarul changé fond bi fond bu ñuul la mi ngi nii mais ñu ñu ñu def ko mu apparaître voilà cliquer nañ ok léegi suñu heure moo ngi nii léegi lan lañu def indi deuxième texte deuxième texte bi lan lañ ciy def dañ ciy def live live voilà ok waaw nee na ma live existe na ba pare waaw ah, c'est vrai parce que bee dama ko waroon tuddee heure heure laa waroon def bii ma def live man ma def boobu live voilà kon ñu ñu ko cliquer fii euh, renommé booy changer tour bi amul nga cliquer fii waaw ñu xaar sax te ñu ñu koy def bu gaaw booy changer tur bi live boo mën a changer fii rek dangay def clic droit nga ñëw fi ñu bind renommé nga cliquer loolu defee renommé may na la nga bindaat titre bi léegi ñu def ko ñu euh, euh, arrêt kii ko supprimer ko def heure voilà jikka def nañ ko heure léegi beneen bi ñuy indi dina mën a tudd live ñëwaat texte texte bi ñu tuddee ko live bind live bi la def ok voilà gis nga léegi ñu bind fii ñu def espace def noonu nañ ko def direct sax voilà direct defaat espace waaw loolu c'est très important na nga bàyyi ko xel espace yi ñuy def noonu voilà mooy tax bind bi du sës fii am tuuti du sës fii tam du sës léegi ñu ñëw dem paramètre ko parce que dañoo bëgg mu nekk bind bu weex ci fond bu rouge comprendre nga voilà bind bu weex ci fond bu rouge ñu sélectionné fii fond rouge voilà rouge bi ñu xaw ko def mu xaw foncé tuuti voilà c'est léegi ñu def ko mu apparaître cliquer fii xëcc ko pour rouge bi feeñ voilà def ok voilà léegi suñu direct moo ngi nii suñu heure moo ngi nii léegi ñu wàññi voilà moom ñu wàññi dina baax fii yaakaar tey nii lañ koy def dañuy jël heure bi jiital ko jël direct bi teg après voilà voilà léegi ñu def ko plein écran pour mën koo régler pour mu mën a tolloo tolloo na voilà c'est bon dindaat plein écran bi léegi def nañ suñu heure bind direct léegi la moo ñu dese nag li ñuy teg fii pour def écritel bi ak teg fii benn carré def fi suñu logo ak teg fi nga am dañ fi bind titre comprendre nga voilà léegi ñu ñëwaat cliquer plus léegi fan la ñuy ñëw day ñëw source couleur bu ñu defee source couleur ñu def blanc voilà parce que bu weex bi moom lañ fi def source couleur bu weex ñu def blanc def ok source couleur bi ñëw na léegi dañ ko bëgg a wàccee ba mu yem fii suñu tegee fii benn cliquer gis nga côté yëpp lay wàññeendoo te dañoo bëgg ñun wàññi rek ci kaw fii kase bëgg xëcc ci mu ñëw ba fii da ngay teg si shift si clavier shift ngay bës bañ a bàyyi nga xëcc nii su ko fee dinaa la bàyyi côté bi nga xëcc ci ñëw voilà voilà baax na léegi ko nii tamit voilà léegi ñu ñëw fan li ñëw li stop ñu defaat ajouter source couleur maanaam source couleur ñu ñëw def euh, par exemple ñu ajouté noir waaye yaakaar naa dina baax voilà ñu def noir cliquer fii dem soisir noir bi def ok ok ñëwaat fii def shift voilà voilà nii yaakaar naa dina baax non man maa ngi yàq li ma defoon de xaaral parce que dimension yi ma jox daf ni ma ko bi may bi may bi may wàññi dafoo defaatuma shift respecté ma shift bi te foo tee di wàññi image bi rek war a def click shift voilà bi may xëcc nii di wàññi defuma shift ce qui fait day day defaat image bi mu nekkoon ñu contrôler shift wàññi ba nii itam ñu def nii click shift wàññi ba nii mu sës voilà gis nga lii ñu bëgg nekk na noir mais couleur bi tam dese naa ànd tuuti wala noo ànd na ba que noir am na fii am na ci biir vidéo bi. voilà lii nag say code couleur lay nekk rek par exemple bu doon euh, ITV mooy def xam nga ay ay ay noir ak ay bleu lay def ak yeneen télé ay DTV et cetera bu dee TFM ay rouge la ay blanc ay yooyu mooy couleur am bu dee RTS rouge tamit moo gën nekk seen couleur ak yu demee noonu bu dee 2STV orange la et cetera et cetera voilà bu dee télé nga xam ne affaire diine sëpp ay verte mooy nekk seen seen code couleur voilà couleur yooyu nag da yooyu couleur télé nga am ne télé bi mooy logo télé bee yëpp tele bi ak studio tele bi couleur yooyu ñuy basé wu nekk seen code couleur yooyu itam di ngay basé wu booy def couleur yi nga am ne moom ngay choisir moo tax couleur yi ñu choisir fii dama ko choisir en fonction wu bi couleur yi mu am voilà am na rouge noir ak euh, couleur blanche la wala moo tax ñu ñu def ko noonu léegi ñu ñëw ajouté beneen bu weex la ñuy ajouté wala waaw bu weex ñu teg ci après waaw parce que logo bu xonq la ci teg voilà dina weex dina baax ñu ñëwaat ajouter source coule de couleur source couleur bi ñu def bi yoon maanaam couleur bu weex la ñu def blanc blanc wala blanc choisir nañ ko ñu def blanc 2 waaw parce que blanc amoon nañ benn blanc ba pare ñu def blanc 2 voilà def ok defee blanc 2 def ok teg fii xëcc mu ñëw voilà ñu xam tolloo na waaw léegi lan la ñuy def ñu xam naa dinañ ko xëcc waat tuuti mais ñu teg suñu logo ba pare soo ko xol ñu def fii cliquer image def logo 2 logo moom tam 2 ba léegi def ok parcourir daal dem wëri suñu logo Kalsentuk mooy logo G bi voilà def non parcourir nañ ko ba pare def euh, ok voilà léegi logo 2 tege na logo 2 léegi ñu ñëw glisser ko ci suuf léegi daat koy réduire voilà léegi ñu def plein écran pour mën a réglage mën a mën a mën a normal parce que pour li ñuy def ñu mën ko gis baax voilà léegi ma ñëw fii ci arrière plan bu weex bi non fàtte naa control shift bi voilà shift shift rek du contrôle shift voilà cliquer shift ñëw na nii léegi kii tamit cliquer shift xëcc ko mu ñëw nii voilà kii tam cliquer shift xëcc ko mu ñëw nii si ginnaaw kii dafa xaw a yéeg tuuti mën nañ ko wàccee voilà no ba léegi des na voilà c'est exact ko comprendre nga voilà léegi ñu delluwaat voilà léegi waaw design bi ni mel baax na léegi lan la ñuy def suñu ay texte la ñuy yokk voilà léegi euh, texte bi euh, xaaram xool ñu dem google ñu dem waaw ma dem si Galsen Tube bi voilà jël si description Galsen Tube bi comme ni ñu ko defoon keroog yaa fi texte bi nag li nga fi bëgg def nga fay def waa ñun ñoo dem si description Galsen Tube bi parce que loolu lañ fi bëgg a dugal voilà propose voilà ñu ñëw dugal lii voilà texte bi lañ bëgg a def euh, voilà def ko fii ba fii rek comment gagner l'argent sur YouTube doy na copier su ma copier ñëwaat fii ma xaar ma réduire kii parce que ñaari image mën na jaxasoo voilà léegi texte la ñuy defaat defoon amoon nañ euh, texte texte bi ñoo ngi ko tudde woon live amoon nañ beneen texte bu ñu tuddee tam heure kon troisième texte la def ñu cliquer fii texte troisième texte bi lan lañ koy tuddee dañ koy tuddee euh, défilement voilà défilement lañ koy tuddee muy texte bi ñu war a défiler léegi ñu cliquer ko fii coller ko waaw bu ñu ko coller texte bu weex la te ci lu weex la war a tege non kon du dem nañ ko def texte bu ñuul voilà mu ngi nii couleur choisir fii couleur bu ñuul la voilà def ok fii tamit ñu def ko au lieu Arial bi yoon dama koy def Verdana voilà ñu def ko Verdana au lieu Arial Verdana lañ koy def voilà verde non V mu ngi si ginnaaw waaw ah, moom lañ ko def def ok def ok voilà léegi ñu xëcc ko ba si milieu milieu bi feeñ voilà te texte bi guddul nañ koo jaare fii pour zoomer ko pour dézoomer ko la voilà ñu teg ko ci lu weex li ndax mu mën a feeñ voilà sinon day sant Cissé ñu def léegi shift voilà teg fii tamit fii baax na léegi ñu def ko plein écran pour mën ko régler ba mu mel ni ñu ko xëcc nii ñëw fii tam xëcc ëpp na voilà xaar ñu xëcc fi tuuti voilà yaakaar naa ni baax na voilà nii baax na voilà voilà baax na voilà nii baax léegi lan la ñuy def ñu sélectionné ko bu ñu ko sélectionné voilà sélectionné wu na walla léegi ñu dem filtre pour def ko muy défilé cliquer plus def défilement bu ñu defee défilement ñu def ok yokk ko tuuti fii voilà comme mi ngi daw ñu daal di fermer voilà gis nga suñu texte bi ngi défilé léegi nag titre fii moo ñu desee ñu demaat si Galsen Tube bi euh, copier fi lan rek voilà euh, voilà def ko nii voilà copier lii kase du nekk voilà léegi ñu defaat plus source indiwaat texte texte bii ñu def lan titre lañ koy tuddee titre voilà bu ñu defee titre tàppe fii titre bi bi yoon titre bu weex lañ koy def ndaxte ci bind bu ci fond bu ñuul lay tege comprendre nga voilà mun nañ def wala nañ fi contact par whatsapp et cetera mais léegi mën nañ fi def Pape Mor Lo voilà Pape Mor Lo naa baax na ni voilà léegi ba je crois nañ dem sax defaat tuuti réglage fii texte bi naa dem def ko li nga xam ne moom mooy impact voilà pour mu gën a pour mu bañ a nuroog texte yi nekk foofu mu gën a dijj comme tour la pour mu am différence impact j impact impact mi ngi noonu voilà ñu def ok def fii def ok voilà léegi mi ngi nii ci kaw léegi ñu wàññi ko voilà voilà moom fii lañ ko bëgg teg daa ni mu tegee baax na voilà léegi ñu wàññi dindi écran zoom bio écran plein écran voilà jeex na léegi am nañ suñu live bu simple boo xam ñu yëpp ci biir OBS lañ ko defee voilà mais gis nga teg nañ ay éléments yu bëri pour mën ko def voilà lii nag soo ko bëggee éviter parce que léegi la lii mën na diisal live bi soo koy dawal ci li nga xamante ne moom mooy YouTube sa connexion bu bu nekkul connexion yu ama ama am doole yooyu voilà comme télévision yi dañuy wut connexion yu doole <laughs> si la ñuy dawal seen affaire des fois mais bu dee connexion yi nga xam ne ci kër yi pour yu simple léegi-léeg mun nga charger OBS bi charge bu bari nii après sooy dawal dafay yéex ci OBS bi mu transmettre ko ci ci YouTube bi mën na am problème ci latence bi yéex comprendre nga léegi nag bu doon nag dama jëm jël benn image boo xam ne rek par exemple damaa dem ci jëmp wala Photoshop moom defar fa benn image transparent boo xam ni dafay nekk full HD image ba ma teg ci sama logo teg ci bind bi direct bi comprendre nga heure bi rek mën naa bàyyi heure bi kese ma teg ci direct bi teg ci bind bi teg ci logo bi teg ci template bu weex bi teg ci bu ñuul bi teg ci bind bi et cetera yëpp ba nga xam ne ñaar kese laa fi doon def mooy yoo xam ne moom dafa war a daw ci OBS bi muy texte bii di défilé kese laay bàyyi ak li nga xam ne mooy heure bi kese laa ci dul teg su ko defee su ma ko defaree ba pare soo ñëwee ko lancé automatiquement lépp day nekk loo xam ne benn image la ba mu des heure bi ak li nga xamante ne mooy texte bii défilé donc nga ñëw teg ko nag sa kaw ma sa qui fait que si euh, OBS bi ñetti élément ñeenti élément nga fi am sa vidéo ak li nga xamante ni moom mooy heure bi ak euh, beneen bi si topp mu muy texte bi défilé euh, jeex na heure bi texte bi défilé ak sa vidéo muy ñetti élément voilà nga lancé direct mu dem loolu mooy avantage bi waaw nga bàyyi ko xel bu baax léegi direct bi bu neexee mun nañ ko lancé mën nañ ko mu dem si si si YouTube bi ñu wan la xaaral ñu dem YouTube def cliquer fii ñëw passer au direct après dañ koy def nag li nga xam ne mooy euh, privé pour du feeñ ci ci ci ginnaaw voilà voilà ñu xaar mu chargé après ñu lancé ko parce que yaakaar naa euh, fi programme woon ni quoi privé mu ngi nii yi si des du paramétrage yi du soxla ñu ci changé dara quoi mën na ñëw fii directement rek voilà ñu lancé direct bi ñu def fii commencer les streaming voilà léegi ñu xaar YouTube dina ko détecté parce que clé bi ñu fi dugaloon changé wul ba léegi voilà bu ko détecté léegi direct bi commencé di daw voilà gis nga YouTube détecté na ko bu ko defee direct commencé jàll jeex na voilà vidéo lañ jël. dugal guñ ko suñ seen YouTube mais dañoo préféré dawal ko direct suñ ko dawalee direct ba direct bi jeex direct boobu nag nekk vidéo nekk ci seen YouTube bi su la neexee vidéo boo defar bu ko dugal ba neexee direct nga koy dawal soo ko dugal am na seen yu def noonu voilà lu ñuy dugal direct lañ koy def mu soog nekk vidéo comprendre bu la neexee nga dugal vidéo directement bu la neexee direct loolu yaay xool ay option la voilà mais defar vidéo parce que direct yi dafa comme mu laaj ay détails loolu la te montage bi da ngay am liberté def li nga bëgg def ba pare ba mu nekk vidéo nga chargé ko daa gën a simple voilà mais direct YouTube nga am 100 pour cent direct bu clean bu simple ci sa chaîne YouTube moo ngi nii yëpp OBS la ngay utiliser utiliser wu beneen affaire bu compliqué comprendre ko voilà. léegi nag vidéo bii di ñëw incha allah rabbi dinañ la wan direct boo xam ne nag maanaam mooy gën a kii tuuti quoi sophistiqué tuuti mooy gën a nuru télévision tuuti <laughs> donte nag nekkuñ si wàllum télé ñoo ngi ci wàllum direct boo xam ne par exemple tey dina am bii di défilé. dañ def tam boo xam ni logo boo xamante ni logo bi di di di bouger di tourner nga teg fi logo boobu dafay tourner di tourner tout ak bind bi yi nga xam bind bi tam wala nan nga kay defee soo bëggee bind bi ñëw comme télé yi des fois bind bi kii wax mën na jékki-jékki bind bi génn nii daw ñëw jékki-jékki su demee ba yàgg mu jékki-jékki génn ñëw wala su su fekkee débat bu bëri nit la kiy wax suy wax rek turam mooy ñëw affiché kooku su caméra bi jëlee kanam tur bi dem tur kooku affiché loolu dañ la wan soo ko bëggee def nii ci manipuler ci tur yi fii nan nga koy defee dinañ la ko wan incha allahu rabbi voilà def tamit peut-être euh, logo bi tourné en même temps ñu wan la boo ko def fii def ko fii nan lay demee voilà yooyu dañ la ko ak tam dañ loon benn site boo xam ne dinañ fa biir ñëw template yii nii fi ñuy teg bind yéeg yi duñ ko créé ci biir OBS yëpp dañ koy defar ba pare ñëw teg ko ci obees logo bi tourné kasa la ñuy dem defar jeex na yi des yëpp dañ koy defar programmer ko ba mu des heure bi bind direct bi ak logo bi nekk fii ak yëpp ñu programmé ko voilà ñëw teg ko voilà yooyu yëpp dinañ la ko wan ci vidéo vidéo bi ñëw mooy gën a gudd parce que dañ la wan live bu gën a sophistiqué tuuti ni nga ko mën a ni nga ko mën a defaree bu loolu jeexee nag après peut-être benn vidéo moo si tegaat muy vidéo bonus lay nekk boo xamante ni spécial fond vert lañ koy def incha allah rabbi voilà voilà noonu la léegi ñu dem nag euh, ci Google bi woon la yenn yenn image yi nan nga ko fay amee quoi bu ñëwee Google fii façon image yi boo ko bëggee muy image live la yoo xam mun nga ko télécharger ay PNG su nekkul PNG mun nga ko def PNG ci remove remove BG boo ko fa dugalee mu nekk PNG su dee benn fond la image yi après mun nga ko utiliser say vidéo au lieu ngay bind live bi nga jël foto bi rek teg ko voilà des fois mooy gën a simple mun nga tàppe rek live PNG si si Google mu indi la photo yi nga xool biñ ci soxla nga jël su la neex après nga def ci quelques modifications personnalisées ko bu la neexee nga bàyyi noonu comprendre nga boo xoolee si nga bii rafet na mën na am dinañ ko utiliser ci vidéo bii di ñëw incha allah rabbi wala live PNG ngay tàppe wala léegi gis nga su fekkee da nga bëgg ay fond vert comme bi ñu defoon euh, ci numéro 19 bi vidéo bi ñu la wan fond vert euh, fii lañ jël woon fond vert euh, si yoo xam ne écran télévision la yaakaar naa bi ñu jëloon mi ngi fii si page bi bu ñu continué woon défilé ko gis peut-être léegi daal fii ngay ñëw si Google nga tàppe green screen TV. news après ñu yokk ci HD maa yëpp ay mots clés la pour rek la ñuy recherche gën a am pertinence parce que dañoo def green screen mooy mooy fond mooy écran vert fond vert ñu def TV li ñu ci jublu mooy mu ne ñu ay fond vert yoo xam ci wàllum télé la ba pare ñu def news maanaam mën nañu fond vert ci wàllum tele la mais ci wàllum information ba pare ñu def yokk ci HD muy fond ver boo xam ne wàllum télé la ba pare ci wàllum journal la ba pare mu nekk résolution yu HD mu baax comprend nga noonu lañ ko defee recherche bi léegi ce qui fait dinañu indil yoo xamante ni li ñu soxla moom il faut dinañ ko gis benn ci fii page bi waaw bu ñu waree dinañ fi gis li soxla parce que li ñu tàppee dinañ indil yu méngoog yooyu du ñàkk ñu gis ci benn bu ñu soxla boo xoolee yu bare ngi fi yoo xam ne mun nañ ko utiliser selon critère de recherche yi ñu def moo wax la benn affaire nag image boo munti di wër soxla ko ci sa YouTube mun ko ko am ci Google il suffit nga xam li ngay wër xam nan nga koy wëree rek voilà Google dina la indi la image yoo xam ni am na pertinence dëppoo na ak li ngay def soo jëlee image yooyu nag après nga personnaliser ko dindi si li nga soxla yokk ci li nga soxla bu dee image daa am loo xam ne bëggoo ko nga dindi ko par exemple nga jël benn image fii image bi nga jël ñu ñu ñëwoon si bii image bi neexoon ñu wala xaar bii daa xaw ndaw sax ñu ñëw bii neexoon ñu tey mais jël nañ ko ñu xool live lañ bind te bëgguñu live bi fii mu bind news te journal lañ bëgg journal lañ bëgg a bind fii bëgg a bind fii direct texte bi tam ñu effacé ko bind fi suñu ay texte fii ñu def channel ten news ñu dindi ko bind fi suñu turu chaîne boobaa mën nga télécharger bi après nga yóbbu ko ci photoshop nga effacé bind yi bind fi li nga fi bëgg a bind effacé bind yi bind fi li fi bëgg a bàyyi ko mu nekk sa fond vert di si des noonu comprendre nga voilà ce nga koy jël gis nga ay image yu rafet yoo xam ne boo ko tegee def ko si OBS lu verte la day deñ yow sa vidéo di feeñ yii tege fi léegi nag comme ni ma ko yaay dem personnaliser ko dindi bind yi def fi bind yi nga fi soxla comprendre parce que recherche si internet tamit booy recherche en français lu si bëri doo am résultat yi nga bëgg <laughs> internet noonu la tëddi anglais moo ëpp ay résultat que français que yeneen langues yu ndaw ndawaan yi comprendre nga voilà noonu la affaire parce que adduna bi dëkk yu mag yi anglais la ñuy wax yeneen dëkk yu mag yi waxul anglais ñëpp anglais mooy seen deuxième langue voilà parce que dëkk yi fi ëpp doole muy Russie muy euh, Chine wala muy kii nga xamante ni mooy euh, par exemple ay Mexique wala euh, beneen dëkk ba nu mu tuddati am na beneen dëkkuwaay ma jàpp tur ba dëkk yooyu yëpp dëkku même dëkku arabe yi dëkku arabe yi asiatique yi ñoom ñëpp li seen deuxième langue anglais la moom lañ jël def ko deuxième langue voilà xam nga chinois yi bu ñu defee seen deuxième langue anglais russe yi seen deuxième langue anglais la allemand yi seen anglais yi seen langue anglais <laughs> kon xam nga anglais moo ëpp doole ci monde bi voilà moo tax booy recherché dara en français des fois mun nga gis bañ a gis résultat wala nga gis tuuti résultat wala gis résultat yu la loolu nga doon recherché nga tra bu ne même bu dee déggoo anglais garaawul dugal ko ci Google nga def tra traduction mu traduire la ko ci ci anglais nga jël mot anglais bi mu la traduire wala phrase bi nga collé ko waat ko ci Google ba léegi def recherche di nga gis dina la indi résultat ay junniy junniy résultat fële à la place mun na la indil ay quelques résultats yu tuuti. voilà noonu boo recherché ma la jox lu tips boobu boo recherché ak lu mu ti nekk soo recherché francais gisoo li nga soxla recherché en anglais di nga gis li nga soxla incha allah rabbi voilà. léegi ban moo si des site bi nga xam tam moom ay vecteur la ñu ngi tàppe rek vecteur banners tv png pour mu nekk ay image trans am transparence comprendre nga yii tamit mooy comme yi la wax dinañ ba vidéo boobu bii di ñëw dinañ ñëw fii télécharger yi ñu war a defar yëpp dañ lay wan ni ñu koy uti A ba ngay ñëw dugg Google wër ko télécharger ko bu ñu soxlaa modifier dama wan la modifier ko ngay gis ñëw utiliser ko ci vidéo bi ngay gis noonu lañ ko fas yéenee defee <laughs> parce que moo benn boobu moo si des ak beneen bi si topp ci fond vert incha allah kon ñu ngi lay remercier ci seetaan bi nga ko doon seetaan di la jox rendez-vous vidéo bii di ñëw jërëjëf.